asalaamaaleykum wa rahmatulah wa taala barakaatuhu ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu sëñ Muntaxa Mbàkke di ko ñaan mu yàgg fi wér di nuyu mbokk taaliba yëpp sëñ Abdou Lahad Seck mooy wax ak yéen fii si Touba Darou euh, li nga xam ne moo ko euh, ensemble dañ jàpp ne mbiru yaradu ko parce que ay député du fekkee ne dañ leen a fal population bi am yaakaar si ñoom. dafa am comportement boo xam ne war nañ mun a comporter population bi nga xam ne dañ taxoon leen seetaan mun a am loo xam ne la taxoon ñu fal leen ñu gis ko si ñoom wala comportement yaradu ko lañ fa gis ak xamat yi dañ leen war a yóbbuwaat dafa leen formation daara ñu xam ne population bi toog leen seetaan ay nit lañ ay kilifa ñoo toog leen seetaan man la fa lañ fa def lépp parti au pouvoir parti opposition benn sénégalais rafetlu dañ koy ñaanal rek parce que xamuñ ko comme yàlla def na moom lañ tànn mu nekk fa mu tëddee ndey ji seex ku nekk li nga moom mu jox la ko mu doon loo xam ne lépp lu rafet la muy parti au pouvoir parti opposition parce que njiit dafa doon loo xam ne lu jafe la ensemble bi daal je pense que li fi paase woon at yi passé war na mën a wuteeg li nga xam ne moom mooy ñëw ak yaakaar yi nga xam nañ ko yaakaar suñu loolu moom suñu borom moom mooy fal mooy fal nit parce que président ma Macky Sall mi nekk fi kenn mu sa yaakaar na doon président kon loolu mbir suñu borom la loolu moom pour wax si dina doon loo xam ne lu xaw a jafe parce que faluk suñu borom moom ku si wax rek day xaw a indi ak réeroo loolu la ko naqari ba mu def ko ñun xamuñ ko la ko naqari ba mu def ko ñun xamuñ ko parce que moom président yàgg nañoo ànd di jàppante di juboo nekkoon na fi premier ministre jekk jub dem la tax mu dem nag ñun ump ñu ump ump nañu tuuti dal waaw daaw waxoon naa ko te dama koy waxaat lu jul fay du jàkk ndox mi des années maa ngi siy wax parce que li may wax mën la engagé parce que doo demee bay jënd citerne ndox quatre-vingt mille francs cent mille francs kon y a un problème Touba dañoo war di fay ndox fay ndox googu nag fii ak amul chaque année nii la ñuy dundee màggal duñ demee ba nga xam ne màggal fi ñu toll euh, problème mu ndox ñoo xam ne problème mu togg dañ koy am ak lu ñu sangoo te ñi mënta jënd sa citerne ndox quatre-vingt mille francs à cent mille ñu ngi si ay difficulté Touba administration bi nga xam ne ñoom ñoo gérer ndox mi dañ leen a war a xoolaat parce munoo ne yow da ngay jaay ndox ba pare te doo fay état ndox ndox mi dañ ko war di fay comme tout le monde Sénégal luñ dul fay du jekk munoo ibbi robinet lu mat 6 mois nga bàyyi ko yor 16 euh, anglaise boo xam ne day xelli pendant un an nga bàyyi ko doo ko réparer parce que fekkoon ne nii ki la koy fay problème boobu da am y un problème kenn xamul fi xaalis bi jëm ñi ko yor daal xam naa ne ndox manquewul seen biir kër yi ndox manquewul seen biir kër yi ñun nag yaa a problème parce que ndox mi moom franchement fépp la metti fii si biir Touba te yàgg nañ ko wax ndox mi dañ ko war di fay état jël ay responsabilités defaraat ko parce que am na ñu fi indi ay projet fii Touba man saa bu ñëwee dafa am nit ñoo xam ne ñoo koy yàq parce que interpersonnel lay doon kon nag ndox mi su bokkum il faut état jël ay responsabilités parce que Touba dëkk sëñ Touba la sëñ Touba moo ko moom wante dafa am loo xam ne état Sénégal du su dugalul loxoom du dem kon nag ndox mi dañ ko war a fay defaraat réseau yi ñëpp di fay ndox ndox mi mun a jàkk munuñ pendant des années ñuy dund dund duñ 1980 1979 Touba du village Touba doonatul village dëkk la boo xam ne dafa màgg ndox mi su boppam dañ ko war a fay chaque anne dañuy am problème ndox même am na ay privé yoo xam ne mën nañ ko gérer te ñu ngi yor ay projet yoo xam ne yu crédible ñu yëkkati ko jox leen ko ñu yor ndox munu ma ne damay jaay ndox ba pare kër goo dugg day jël ndox mum naan te du màggal ñu ñu am problème ndoxu sangu ndox mu muñ toggee ndox ñu demee si euh, wanag yi kon y a problème dañoo war a saytuwaat ñi nga xam ne moo yor ndox Touba du àll Touba dëkk la ndox mi dañ ko war a gérer di fay comme tout le monde dëkk yëpp ay fay ndox Makkatal Mukarrama dañuy fay ndox y' a combien de pèlerinages yoo xam ne y' a cinq cinq millions te Touba moo ko te duñ manqué ndox kon ndox mi dañ ko war a fay. loolu moom wàllu communauté rurale ne leen état accompagné ñu jëm si liggéey liggéey bu rafet loolu moom naa ma lu may wax si mbiru assainissement. nu ma ko jàngatee mooy ne nit. du lay teral da koy teral mënul dugg si élection Touba ni ñu ko def ñëpp gis nañ ko pour cent sax li fa waroon a am amu fi dara lim mun mu ngi koy def loo Touba man je pas APR du ma Sonko du ma APR Sénégal mille trente cinq gi ma nekkoon démissionné naa si bu yàgg yàggat. sama sama digganteeg moom maa ngi moom amuñ benn jafe c'est un frère. yàlla moo defoon ñu waroon a ànd bokk ay gis-gis bi ma demee ba gisatuma loo xam ne convaincre na am naa droit taxaw. waaw balaa yàgg bëgg naa def déclaration boo xam ne man lay concerner sama wàllu politique parce que politique bi dugg naa si te 2024 incha allah bëgg naa samp sama ndënd. candidat présidentiel incha allah. waaw parce que président Macky Sall mii doo arrière à deux mille euh, quatre vingt dix kenn mënut a xalaat ne mun naa yaakaar ne dina doon président Sénégal président suñu borom moom moo koy fal te suñu borom ku mu tudd na da koy doon da nga koy doon. argument si am mooy président tabu premier ministre euh, indi ñu ñu xarañ liggéey loolu moo ko parce que xuloo beeg xeex bi nit ñi dañ sol Sénégal dund gi seer na lépp métti kon nag ñu ngi ñu ngi koy ñaanal yàlla dimbalu ko mu tagg ministre nit ñi passé étape bi xeexu xuloo nit ñi dañ sonn nit ñi sonn xeexu xuloog saaga Sénégal tollutul foofu parce que àdduna moo changé léegi Touba état wala privé yi dañoo war a jël seen responsabilité jël ndox mi gérer ko jaayum ndox moom te doo fay ndox amul fenn Touba rek la damay jaay ndox def son poste te du fay loolu amul fenn nañ ko jox privé yi nga xam ne ñu ngi yor seen i projet mun a yor ndox mi nañ leen ko jox wala état jël ko ñu gérer ko su boppam parce que Touba si état Sénégal la bopp sëñ Touba moo ko moom nag wala nag lu état àndul wala état du gisul du dem kon nag c'est le temps état jël ay responsabilité ñu ngi ñaanal sëñ Muntaxa yàgg fi te wér di sant njabootu sëñ Tuubaa bi yëpp li may wax nag man samay engagement bopp bokkuma si turu kenn en tant que sëñ Abdou Lahad Seck mooy wax di homme d'affaires citoyen Sénégal bokkuma si turu kenn sama tur bopp laa wax ak samay gis-gis